maam Thierno Birahim Mbacke turam dëgg di Cheikh Ibra Fati ñu koy dàkkantelee borom daaru wala ndaamal daaru mi ngi gane àdduna bisub alxames ci jamonoy 1866 bu mu nekkee tu tànk la ko wayjurum wu góor wóolu doyloo ko dénk ko magam ji di Cheikh Ahmadou Bamba Sëriñ Tuubaa jàngal ko alxuraan ak xam-xam ba mu wàcc bi seen wayjur wu góor làqoo ci la maam Thierno des ci feg magam Cheikh Ahmadou Bamba di wéy ci ndigalu sëriñ bi mu yebal ko ci ay kàngam ngir mu jàngaat fa ñu ràññee ci ku ñu wax Mor Biram Jaxate ak Xaali Ma Jaxate Kala sëriñ bi dëkk na ci dëkk yu bëri ñu ràññee ci Daaru Marnaan Guy Ngara nekk ca Mbàkke mook sëriñ Fàllu ak sëriñ demba Mbàkke ak maam Cheikh Ibrahima Fall ci atum 1912 ci la dem sanc dëkk bi di Daaru Muxti ginnaaw bi mu jotee ndigal lu jóge ci sëriñ Touba mu jóge woon ci Touba bi ci atum 1903 maam Thierno yokk xam-xamam ngir mën a yanu sas bi ko Serigne Touba sasoon ñu ràññee ci tàggat bi mu tàggat taalibe yi ak i doomam Serigne Touba woolu ko dénk ko léppam maam na Thierno Birahim Mbacke mi ngi làqu ci atum 1943.